jàmbaar la jëlal musuwaar bi ah fii lan la mën a yem ndax ah, nag sa saa xol ba tooy na wax na ba xolam tooy mu daal di jooy ndax ah, nag fi mu dugg sax dafa sori yaay ak doom te nee na yaayam moo la ko jàppal ci li nga nekk liggéey dong nga nekk moo tax gën a la yokk góorlu gën a jàpp sa liggéey xam ne sunu borom moom ñépp la fi nekkal waaye tamit <coughs> yaay moom dafa foor ci doom te comme que sa yaay ngi ci ginnaaw du la dooleel amaana si kaw rek ngay nekk doo mës a wàcc ah. dañ la bàyyi rek nga tàggatoo jëlal musuwaar bi yow waroo di jooy parce que yow nee nga jàmbaar nga te fi nga jaar à l'âge de quatorze ans ku fa jaar waroo di jooy bul jooy ndax nag li nga wax nii lu am solo la su ko loo xam-xam ne jàmbaar nga te li nga fi wax tamit ku la déglu tamit dina xam ne waxi góor nga wax liggéeykat nga ki la xamul kay mooy ki la jegewul te nit boo ko jegewul mënoo koo xam tëjal ñu rek ñu bàyyi la xam naa ne doo a yegg na nekk jàmbaax nekk jigéen koo xam ne nii Ah, day yëngu ci wàllum jaay jënd ak li nga xam ne moo di ay jaay diw ay produit li nga xam ne lépp day jëm ci wàllum jigéen xam naa ni loolu tamit danañ ci ñëw mu nekk ci réew mi ñëpp xàmmee ko waaye vidéo boobu dafa nekk vidéo boo xam ne dafa viral ñëpp jot ci daal di ne est-ce que Sasa li mu wax nii tey moom moo ko wax wala fan la wax ji jëmee ba lan moo tax mu wax lu mel nii looloo tax ñu doxantu fas yéene waxtaan ak moom fan la wax ji jógee ak lan moo tax mu wax ko ndax nag wax doo ko dégg rek daal di koy jugé directement da laaj ci wax borom wax ji fan la ko jëlee ak naka la ko waxee nga dogay xam fu wax di joge c'est ça ma ngi lay nuyu di la kontaane maa ngi lay fay gitu. ma ngi nuyu ñepp di nuyu Sénégal yépp ma ngi nuyu sama yaay di nuyu ñepp ñi may sétan mhm. ñepp ñi may béggee tamit ma ngi lay nuyu di nuyu wa diaspora bi mhm. ma ngi nuyu wa diaspora bi yépp yeen tamit ma ngi lay nuyu di len sante di len gërëm ci téway bi ngeen téw fi mhm. olof nak dafa am lu mu wax nee nañ weddi du ragal sétal sa dal parce que man damay jaay ci internet bi laa nekk di jaay ay produits. Hmm. nee naa la ñëpp xam nañ ma Sénégal xam nañ ma waaye diaspora bi tamit xam nañ kan mooy Sasa Saliou. nee naa la ma nekk ci TikTok bi nag jamono yi di ko dëgg. Hmm. ak ay produits yu baax nee naa la nag bu doon naxee mbaay tamit mënul yàggee nii. ay produits yu baax laa yor nee naa la képp ku ñëw ci man dama lay satisfaire. ba ci ku Mbaye am moom ngeen di wax sama diggante ak moom. Hmm. dama koy satisfaire. parce que mbay bo len xolé ci internet bi di ngeen gis ben vidéo bo xamanteni ni actuellement ni mom moy def buzz mhm. ci internet mhm. parce que mbay day ñew ci man ma kay jaay ay produits mhm. produit yi ko mbay mu ma mané ko yok bi dafa am fo yam mbay ni du fa yam trois pots yi moom mooy traitement bi bo jëlé ñetti pot doy na mbay ni mom du yam ci ñetti pot yi légui mbay né du yam ci ñetti pot yi di diw affaire bi di neex affaire bi mbay yor anaconda boo xamante ni nee na da koy takk léegi bi ma toogee sama direct am naa droit wax ko ndax maa ko jaay maa ko jaay jaay ay moroomam hmm. mais bi ma ko jaayee ma toog sama direct ni leen mbay ku caa ñu ni ma ah, man leen li mu yor da koy takk fi mu toll nii maa koy jaay nee naa ko mbay trois po yi moom mooy traitement bi mbay nee na du yem ci trois pots yi mbay fi mu toll nii mi ngi ci quatrième po léegi xale jigéen yi di dem kër mbay di fanaan di ran kër mbay di fa fanaan man mako gis gis hmm? bo len gisee mbay fi ben xale bu jigen fi lako door ba da fer parce que da mbay da ko fatoon bim ko nee genn xale bu jigen bi du genn ni du genn am na tiktoker bu ko duggal sax am na benn tiktoker bu ci yam ba mhm. vidéo ko duggal ko histoire boobu mhm. njaayloo mo mhm. duggal vidéo bi bi mbay neen xale bu jigen bi doo genn doo da ngay genn xale bu jigen mi ni ko duma genn parce que mbay limu yor bu la faté do génn légui man comme damay jaay samay produit te man mako defal hmm. ma génn tok ci sama direct wax len mbay limu yor fim mu toll nii da kay tak ba paré mbay day wëral di maralaté day mar mar 200000 lay fayé ko légui ñu dag ko mom mbay ku caax légui ñu dag ko yobbu affaire yi xam nga rek tiktok bi dañuy dag lu len neex hmm. gaay yi di ko interpréter lu len neex ta man sama liggéey la nek Mm-hmm. man kuma xam internet nga ma xamé mm-hmm. man duma taxawalu defuma lu bon waxuma lu bon damay liggéey sama liggéey mm-hmm. te sama liggéey bi ci lay suturlu kon duma ko fowé duma ko caaxaane lepp luma wax nak damay wax pour jaay sama ay produit limay wax nak pour jaay produit ak sasa wouté na limay wax pour sama ay produit la mais nekul ni man limay wax loolu laa mel mm. wala loolu laay dund gis naa nag ku nekk di ma taf mais je m'en ci li ñuy wax mm. waaw gis naa ku nekk di ma taf ku nekk di wax mais lijjantiwuma li ñuy wax gis nga tey laa gën a mën a jaay sama ay produits tey laa gën a mën a wax ay bal mm. waa bal yi dama koy wax waaw ay la gëna mëna wax ay bal. mais bali timit est ce que timit do am foo yemale bali. parce que wax nak, parfois lu ma neex laay wax mais man luma neex lay wax. parce que man waxuma lo xamanteni waruma ko wax waxuma kenn kay bon ndax man banuma man mënuma bon talibé serigne saliw la hmm. mënuma bon te ñi wax ni sa sa dafa def ni dafa def na kenn mënul génné preuve man kenn gisuma ci boîte de nuit kenn gisuma ci bar kenn gisuma may taxawal fenn. Hmm. man ku gis sama kër nga ma fekk barki Serigne salim Mbacké man kuma gis sama kër nga ma fekk budul internet buñ ma xam internet moo tax mu xam mata internet dama fay liggé pourquoi du ma fa liggé samay morom di liggé ba paré pourquoi may bañ kumay taf di wax ci man négatif dama gën ñi ñi taf ñi ñi taf di leen wax naga sulu nonu gënuma leen té lolu nonu defuma dara taf yi may taf di wax naka sulu nonu defuma dara tay la gëna mëna mën liggéey bi ngeen ñëwé da ngeen ma fekk may live tay la gëna mëna live tay la gëna mëna wax gros mot parce que damay jaay produit yo xamanteni ni mi ngi lembaaje dëkk bi waye diaspora bi xam nañ kan moy Sasa saliw fi ci Sénégal xam nañ kan moy Sasa saliw produit yi amna Touba amna Dakar amna na Pikine am na Yoff bu doon dañuy jaay lo xamanteni ni baaxul kon mënul yàggee nii produit yi bi ñu ko dalé jaay léegi léegi mu def 4 mois Mhm. te nit ñaa ngi koy jënd ba tey tey lañ ko gën a mën a jënd mhm. kon jaayuñu luy loo xam ne day lor nit mhm. koo leen dégg nag ma ni maa ko jaay maa ko jaay man aw ma kii aw ma benn intérêt may naan mbay Kouthia maa ko jaay mbay Kouthia maa tax xale yi di ko ran te mbay te jaayu ma ko mbay su génnee wax digganteem ak yàlla xam na ni maa ko jaay te waxoon naa ko na yem ci ñetti po yi mbay ni day dépassé ñetti po yi te man ku ma jaay dama la naan trois po yi moom mooy traitement bi am na ñoo xam ne du ñu jël sax du ñu yem sax si kii bi suñ jeexal trois pots yi mbay nag dafa dépassé trois pots yi moo tax xale jigéen ñoo ko topp comme ay weñ jeeg ji ak jànq ji ñëpp ay topp mbay fii lañ ko dóor baax de fer te sama produit yi moo ko yóbbe parce que mbay rafetul amul xaalis kon xale jigéen buñ koy topp am na lu tax ñu koy topp bu pare mbay man ay jeeg ay turi jeeg la may wax ñoo xamante ni ay kilifa lañ xam nga ni kuy jox mbay ay 200000 cent yor na xaliss ay 200000 cent koy may mbay kooku yor na xaliss bay ay kilifa ñoo koy toog mais la ma ce problème ak mbay ba nga xam ne tey mu ngi xëy di ñëw su keur naan la seigne sëñ mataar wa dañ la mataar mi ngi lay wo jëlo ndax ndax eh, dañ la bëgg eh, plainte ndax sa wax ji nga xam ne yaa koy wax ci tiktok wa waaw mbay dañu daf ma porte plainte ci limu wax daf ma porte plainte neena dafa ñew sama keur pour indil ma pelante bi lolou la ma wax mhm. taxaw sama balcon ni ma dama la indil pelante après nee mom moom Matar Gueye lay wo ci limu wax si téléphone mhm. ma Matar lay wo maniko wowal ma ma man ragaluma ma Matar Gueye ragaluma kenn parce que man sama liguey la nek di def mhm. damay jaay sama produit wowal ma Matar mu ne wa waaw Jamra ñing lay wo bobba tay jëlo ma leni xamal nak yeen sénégalais Jamra wowuma tay Jamra woowu ma suba parce que loolu tamit il faut ma leeral man Jamra woowu man awma ku may tiit ci sama àdduna man mm. awma lu may ragal ci sama àdduna barki Serigne Saliou Mbacke yàlla suñu borom rek laa ragal xam nga ba nit moo am sens si man mm. ma rus la mais su ma la rusul man awma lu ma ragal ci kaw suuf su ma Jamra woowoon barki Serigne Saliou damay wuyu wax correctement ndax man ci dëkk bi laa judd fi laa fi laa juddoo fi laa yaroo fii laa màgge a nee naa leen fii laay jaayee mm. kenn du ma fi teree liggéey suma jamra wo dama koy wuy wax ak mom mais jamra wo ma tay jamra wo mo suba mhm. loolu nak ay waxu sénégalais yi la ya ma gëna xam nit ñi seeni wax mhm. mais naka la la def ce vidéo bi ñu dag ko duggal ko tiktok ñepp euh, diko ñaawlu naan Sasa wax ji mu wax dafa reuy mais Sasa wax ji mu wax dafa reuy ma leen di wax ni len tiktok bi man lañ mujjé taf mais tiktok bi ñepp lañuy ñuy taf fii kan lañ fi taful ñepp lañuy taf mhm. ñëpp waxal lu ñaaw comme man maa opté dama dama siiw man maa génn si TikTok bi man maa nekk si YouTube bi mais mënuma bañ ku ma taf mais luñ ma wax baax na l'essentiel que li ñuy wax kenn du ko gis si man képp ku yor vidéo sasaa bu muy defee lu bon wala nga mus gis dox guddi ba gis sasaa na ko génne amul hmm? man 22 heures damay fekk ma tëdd bu ma laayiful man ku mus dox guddi ba gis ma ci restaurant wala nga gis ma ci soirée na ko génne amul mm-hmm. man doxuma wëndeeluwuma taxawaaluma ku xam sama bopp laa damaa toog fi ma war a toog ndax damaa xam ni dama bëri noon moo tax dama régler sama bopp damay sóoraale loo xamante ni nii ñëwagul lu bëree bari dama koy sedd man lépp lu may def dama koy calculer mm-hmm. man damay calculer de trop man mm-hmm. noonu laa mel parce que xam naa sama bopp xam naa ki ma doon man réew mi ku ma fi gënul gënoo ma hmm? waaw réew mi ku ma fi gënul gënoo ma man ay dara laa sant. ay waaw ay dara laa sant am na loo xamante ni du ma ko def mais lépp luñ ma taf si wàllum liggéey xas buñ ma xas si wàllum liggéey baax na sama wàllu liggéey lu ma ci waay waxal baax na. Hmm? maanaam sama liggéey bii dama koy def ba heure bu ma neexee nee naa leen ba ba may yor kaan gi damay jaay nay dëgër. danga may woo téléphone ma ni la boroom yaa ngi jokkoo ak boroom guddal rëyal di jël ah. waaw. assistante yi mom bu ñu rosé duñ wax lool mais bo jotté sa saa rek da ngay xamné ne sa jot parce que man dama firi réew mi dafa bari stress man dama firi damay bëgg samay client dañuy firi sama live damay bëgg ñi may firi ñu kaf ré ambiance hmm. man no stress lay dund parce que nak dama am traumatisme bo xamné dafa ma top depuis xalé kon duma nangu di stressé wu dédé duma ko nangu lool duma ko nangu man dama firi non la mel dama firi damay kaf damay ree sama live noonu la boo ma woowee dama la naan daw ma ci dara dama la naan yaa ngi jokkoog boroom guddal rëyal dijjal man maay guddal anaconda di rëyal anaconda di ko dijjal maa leen naan dangay ngay ngëb ngëbaat mu des ca kaw si di génn mu ñuul ku hmm? man mii maa koy xaw ma ma ciy daw mais loolu oh. ku bon wala jigéen bu sellu ku salte ku tilim ku takk barki sëriñ saaliw doo gis sëriñ saaliw billaahi wallaahi tallaahi ku set setul ku koo xam ne seetlul setul takk na billaahi wallaahi tallaahi mënoo gis sëriñ Saaliw ba ma gis sëriñ Saaliw wax moom mu ñaanal ma léegi man lan laay tiitati kon yow su ma déggee ci sa biir wax sa saa Saaliw mi ñuy dégg ak sa saa Saaliw mi c'est diamétralement opposé non non mais ñoom bàyyi leen rek ñuy wax loolu baax na wax ji baax na trop nañuy gën a wax hmm. waaw nañuy taf di leen di wax lu leen neex maanaam man dama leen naan sama direct man ndax dañ may bind di ma yow amoo classe ñii di ma bind di ma saaga man leen balaa nga maa sànni ca mbalit ma danga may fekk ca biir poubelle ba koo xam ne danga koy sànni ji ca mbalit ma fekk ko ci biir poubelle ba mu toog lan ngay wax. est-ce que tey yaa ngi autosuffisance bi nga xam te mu fi a dénoncé ma nit ñi di def faalewu leen sax. menaces yi ñuy def faalewu ma leen parce que ñi lay woo naan laan man la commissaire damay laaj ba si yàgg ñu woo ma naan laan man la commissaire diw man la agent diw du ma leen faale damay ne jaay sama jaay barki Seydina Muhammad du ma dagg sama direct damay toog gën a direct ay faux policier lañ duñ policier duñ tus ba pare ñoom bu ñuy xoqatal dañuy xoqatal koo xam ne ragal na mhm. manam ñoom bu ñuy tiital dañuy tiital ko xam dafa ragal man o ma lu may ragal yalla rek la ragal la benn nit rek mo am sens yi man ci sa sa moy nit bi mo rus ma ragaluma dara ni la musa mel o ma lu may ragal ba pare dara safuma ko xam wa yo man lan moo ma man buma dara safé wala nit wax ma dara may joy sax man dañ ma war ndox man buñ mo waxé dara bu may metti wala ma wara joy man dañ ma wara japp door mo bu may bëgg dé man fi ma jaar dëgg la. waaw man dara safuma maanaam yi ñuy wax safuma defuma dara mhm. tous bu ma ko def ba pare menaces yi may jot lijjantiwuma leen dañu may woo ni ma man la commissaire diw wala man la policier diw ma koon ne liggéey sama liggéey mhm. juguma sax dem naan dama leen dekk di déclarer wala dama leen kii defuma si dara mhm. damaa toog rek jàpp sama jaam. mais lan ngay wax say fan ñi la bëgg te yàlla rek tax. mais ñi ñi ma bëgg te yàlla tax ñu jàpp xam ni ñoom bëgguñu ko ñàkk fayda ba pare ñu may ñaanal man ñaan kese laa soxla. parce que man ndaw laa dama nekk ci yoon. mooy cat ndax fii ku gàllankoor ku ñu gàllankoor ku ne làmmiñ moo la gàllankoor làmmiñ lay muslu ak bët boo xamante ne ni dafa xam bët bu aay mhm. ci làmmiñ bu aay ak bët ci loolu lay muslu à part loolu dara yoon bi ma jëm dama fay àgg far force bu soobee yàlla ci mhm. kàttanu yàlla du ma tooñ nit mais garab yi nga jaay nga xam te ñoo yokk ko bëgg nga jox ko nga jox leen ko ñu def si nit ñoo xamante ni procureur mën na la woon dëkk yaa ngi mbay xam noonu parce mbay. gaañ ci nit. déedéet mbay moom lañ gaañ. Ah? mbay gaañul nit de mbay moom lañ dóor fii mu taf ko. waaw ah, mais est-ce que deful lu tax ñu gaañ ko. maanaam moom dañuy xale bu jigéen bi nag génn këram xale bu jigéen bi du génn këram li ma leen wax tey boo leen bëggee xam dëgg la wala dëgg dugg leen ci tiktok bi njaayloo moo ko dugal dugg leen ci tiktok bi ngeen xool dañ doon xeex ndaw si ni du génn ba tey jii boo leen demee kër mbay fekk fa ndaw si ndaw si génnul de ndaw si ba tey génn maanaam mbay di muy jëfandikoo ku koy jëfandikoo jigéen boo jàpp du la bàyyi lii da xam nga ni lii dafa am bayre produit bu may jaay dafa am bayre xam nga la moo tax mu am li lay wan ne am na bayre loo xam ne day yéeg avion di dem fu ne te borom mi ngi toog fii partout dans le monde amul produit bi ku ko xamul ñëpp ko xam nay dëgër bi fépp lay dem partout dans le am na ku koy jaay Amérique amna ko xamne amerique la nek man ma koy jox mu koy jaay en gros day dem amerique Canada Espagne France fepp lay dem Londres Belgique fepp le produit bi dem. parce que mais mais man sama boss mo bax nay dëgër yi bëri nañ mais ñom seen yoss baxul man sama boss mo bax hmm? man sama boss résultat ben fan la danga ma nan sa saa kañ ngay laay gis résultat man le premier jour ba paré di tek ni ma lay jaay dama la nan ñëwal ba fi ma nek so gisul résultat nga ñew ma jox la sa xaalis mus ngeena a gis jaaykat buy def lool barki sayidina muhammad may taxaw sama life ni la barki Serigne saliw suma ma la ko jaayee da ngay gis resultat man Serigne saliw rek la bëgg. man dama la nan dama la nan carrément boy ñetti poy mom moy traitement bu ko dépasser man lool la ray wax sama life dama la nan trois poy mom moy traitement so ma woy dama la nan trois poy mom moy traitement mais produit bi xam nga lan motax ñukoy bëgg di jël tout temps boko diwé rek sa anaconda bi day taxaw. maanaam produit boo koy utiliser foo toll da ngay yëg sa ngóora célibataire boo ko jëlee da lay sonal célibataire yi koy jël ñëpp lañ koy mujjee tegaat boo duggee sama page di nga dégg célibataire boo xam dama naan sa saa jaayal lii paa lii du pour xale bu góor hmm. boo duggee ci page bi di nga ko fa fekk boo duggee ci page nga dégg benn naar bu nekk mu Mauritanie naa man jàppat sa liggéey am nga liggéey bu baax produit bi bu mu manqué mun ma man sax dinaa takk ñaare naar bi da koo jël naar bi jël na hémorroïde bi jël na ndoxu cité dama doon dugal retour yi sama page chaque jour mais dañ ni ma boo mënatu la changé voix yi bu dugalati audio yi mais man ay audio laa yor ak ay enregistrement yu leer nañ maanaam ay preuve laa yor sama téléphone célibataire bu ko jël da lay sonal parce que da ngay diw fi nga diw premier jour fa la anaconda bi di taxawee kon man jaaykat yi duma ma seen morom hmm? jaaykatu produit yi man duma ma seen morom parce que ñoom dañ la naan ay jëlal trois pots doo gis dara ay jëlal lii jëlal lii doo gis dara man dama lay jox produit ni la benn pot ngay jël nga gis résiltat ni la boo gisu résultat ñëw ma jox la sa xaalis ba pare produit bi fi nga taxaw fa ngay gisee résultat boo ko diwee amul xaaral ma dem te ñëw da ngay diw rek mu jug taxaw te loolu mooy moo gën a tuuti si li produit bi di def produit boo ko dee jël doo gaaw a daan hmm? boo duggee ci pass bi di nga dégg koo xam nee na daa jàpp jabaram 15 heures ba 18 heures mu ne ma naa la may keesu si pax boo duggee si page boo tàppee Sacha Saliou lépp ngay dégg Sacha Saliou boo ko tàppee lépp ngay dégg maa waa Jamra duñ la woo mais Jamra nañ ma woo Jamra buñ ma woowee comme nii rek man a yéen de baat la ak tontu waaw Jamra ay nit kese lañ nag buñ ma woowee baat la ak tontu dañ may laaj ma wax leen baat la ak moom maa maa moom sama produit ku ma neex ma jaay te nu ma neex laay waxee samay produit ba jaay ko nu ma neex laay waxee en tout cas saaga wu ma waxuma lu bon anaconda laay wax saaga ma waxuma lu bon anaconda dama laan naan boo diwee anaconda bi fi nga taxaw la anaconda bi waaye lan moo tax kon yow ñuy jàngale di wax ci digg bi mais lu tax Sénégal boo jaaree ci digg bi ñu garaawal wax ji jël ko xëcc ko. parce que xale yaa ngi ci wax ko mais man influence waxuma kenn na ñëw kii. xale yi xale yi. mais waxuma waxuma kenn na ñëw def lu bon. Mhm. man maanaam produit bu may jaay damay wax li nga xamante ni moom méngoo produit bi. man damaa wax loo xamante ni méngoo.